bisimilahi rahmaani rahim maa ngi sant yàlla di sant yonent bi sallallahu alayhi wa di sant sama ñaari waajur di sant sama papa yàlla na ko yàlla yërëm di sama xarit ma bu bëggoon mu fekkee nag lu bari tey xëy na yàlla weddi di gërëm sama yaay ju baax ji toog ci kër gi uuf ñu nag ni mu ñu war a uufee téye ñu ni mu ñu war a téye ba nammuñu dara xalaatuñu dara di gërëm sama rakk yi nga xam ne bu ma jógee ñu jóg su ma gestoo ñu gestu su ma waxee ñu wax ñu déggal ma nag ki ci gën a mag sax di Ablaye Gise yor ay ñetti jabaram su ma ko ne tey jaaral fi fa lay jaar su ma ko ne toogal fi fa lay toog sama ginnaaw ñëpp jox ma respect ba ci caat bu ndaw bi jot mi gën a tuuti su ma ko xoolee sax xam na li li li may wax ñuy ñaan yàlla yàlla lafal ñu cat ci loolu may sant nag soo excellence le président de la république monsieur Macky Sall ak son ex ak soo son épouse Marème fay sàll mu baax mi ñi nga xam ne man boobu ba tey ñoo may jàppale depuis ci campagne ba tey ñu may jàppale seetaanuñ ma benn yoon ak sama leader Ibrahima Faye jëfam la ko ñëpp xamee waaye kenn xamul jëmmam muy sam muy fay biram pend waagaal boobu nga xam ne moo ma jàppale man may gërëm honorable bi fi ne tey nekk suñu autorité ci Pikine Nord mooy Sala Korea di suñu yaay uuf ñëpp njaboote ñëpp ak équipe bi nga xamante ne moom la yabal tey ci bés bi parce que man dama tàmm chaque fois mars may def fête de journée de la femme femme yëmbali at bu jot dama leen ko daan defal tey ma ñëw Pikine ñu ne ma bi yoon dañuy defal quinzaine de la femme comme li sama yaay wax dafa tombeek tey événement yu bëree bëree bëri moo tax famille am ak ajjuma ji diis moo waral lii mais bu doon loolu tey koñ ba koñ mun naa ko tant man xam naa loolu ndax yàlla boole na maag nit ñi boole na maag responsable yoo xamante ne kenn ku ñëw présidente bu ñëw boo jiitalee sa mbooloo fii kenn du fi xej may gërëm nag sama góor mu yugoo géey mi nga xam ne maag moom ñoo ànd di liggéey muy sama coordonnateur jël ma jiital ma ne ma yaay sama responsable des femmes julde loo wax loolu laa wax loo foo jaar fa laay jaar nañ ànd liggéey mu jël léppam te ko sama loxo lu muy def daf may laaj lu muy def day waxtaan ak man ma koy ñaanal fa mu bëgg a yegg yal na fa yàlla yeggale bi ñu toogee waxtaan ma ne ko damay def quinzaine de la femme mu ne ma loo bëgg rek bëgg naa ko looy def naa ci naa ci jàppale lu ci sama dërëm demu ci lépp moo ko def ma ne ko man dama tàmm sargal jigéen ndax jigéen ñi Pikine Nord tey bu ko Macky Sall la gagné yàlla ak jigéen ñi ak jeunes yi parce que ñun dañoo dugg ci ay koñ génn ay jeunes yoo xam ne daawuñu voté yor seen i carte ñu dugg ci koñ yi génn yoo xam ne daawuñu voté ñu génn ak seen i carte dem ci ay actrices de développement yoo xam ne bokkuñu ci benn parti mais dañ leen wax ñëw leen ngeen votel président ñoom ñëpp ñu takku dugg ci école yi votel le président de la république kon tey ñu ngi delloo njukkal population de Pikine Nord parce que dañoo takku ba dëgër pour élire réélire le président de la république kon nag waa population Pikine Nord man lii ma def tey maa ngi yuga dañoo delloo njukkal population bi coono bi ñu daj ci campagne bi ku ne gis na ko kenn nelawul tool woon kenn lekkul kenn naanul topp ci campagne bi port à porte proximité Seydou duma bàyyi ma fen ma penda duma bàyyi ma fen ku dee ngi nii euh, sama cousine Ramatoulaye ñu ngi nii ñu ñëpp ñoo naa ànd ci poussière bi di pëndal suba ba ngoon pour nu ñu érila la président Macky Sall kon nag sant naa ñëpp gërëm naa ñëpp rafetlu naa lépp bu doon sama sago tey sax ñu gën a continuer ba ba bët set waaye alhamdulilah sant yàlla parce que liñ ci bëggoon yëpp am nañ ko ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp naar communicateur maa ngi lay gërëm di la sant maa ngi sant ñu fi teewoon ñëpp di baalu ñëpp àq aussi parce que nga woote ñëpp wuy la rek da da da dafa neex sant naa ñëpp gërëm naa ñëpp wasalaam. jërëjëf.